bismillah alaikum wa rahmatullah alaikum le monde de la lutte salaamaaleykum lambe, Lamb alaikum les amateurs de la lutte simple les amateurs de la lutte avec frappe les mélangés, les promoteurs les anciens lutteurs de lutte en activité du nuyu nous du aussi euh, euh, les fans club des lutteurs et aussi des chaînes de TV, du nuit aussi des amateurs nationaux de la licence sans frappe du Sénégal, Tignetou Doudfaï, en même temps du nuit euh, fans club Binyalan TV, nous voyons presque Tchouli, euh, Grand Semoun, Tatachi euh, Taftachi Adama, son adjoint, du nuit Nyapodal, du nuit Nyap en général. Euh, aujourd'hui, c'est le 27 février 2023. C'est une émission d'octobre, 21e numéro, fi fille HLM. Euh, eh, som production mon woote woon fan Grand Yoff arène Adrien Senghor tegon ñata un million de francs CFA un million de francs CFA mu nekkoon drapeau sargal Doudou Ndong Doudou Ndong un ancien lutteur franchement de Sadio yoga def fi lo xamante eh, ay moromam ñu def franchement bari wul ko ci doon sargal nekkoon drapeau angel Fall amoon nak eh, franchement aussi ay invité ay invitation ay ay invité d'honneur comme ni euh, Marcel Niakh comme mel ni Sall dëgg bu général hmm, et tant d'autres. et franchement mën na ko journée bu neex journée bu neex journée bu ambiance tëgg bi neexoon na woy bi neexoon franchement mbër aussi ñëwoon nañu en masse seulement euh, mon absence ay quelques coups de calibre mais n'empêche pas que mon na ay franchement amoon ay mbër euh, te neexoon na au finish nag ki ñuy wax Thiaka Moko ko jël ci ki bu euh, Mbour assurance lamb la euh, franchement euh, seulement dañuy wax né émission émission dañuy li nga yoon ci lamb ji ak li nga jaarul yoon xew ci ba mais franchement tay sama baram dama koy les amateurs sama les amateurs nak dafa am mais ñi nga dañu woote amateur lañu parce que bu dee bëre simple mën a wax supporter amateur nga mëna wax bu dee bëre dóor nag mën nga wax supporter mais eh, selon man ci sama xam-xam bu gàtt simple amateur nga mëna wax donc euh, amateur da lay indexé mais dafa am ñu ko moom spécial ñi nga xamantene bu parrain bi ñëwé di waxtaan di joxe li nga xamantene mom la indi gaay dañ koy yuuxu yuuxu yooyu euh, sama gaay yi nañ koy moytu parce que xam nga lan moo tax bëre simple bëriwul ñi koy def am sponsor bariwul boo xamoon amul mais bariwul bo xoolee ren mën na wax ne presque lamb yi ma seetaan yëpp presque kenn moo ci am sponsor muy lamb ji passé nii boobu laa ci gis boo xamante ne am na sponsor donc kon nit ki bu demee def lu tout pour am parrain parce que mënul am sponsor am parrain as tuut bi ko indil loolu dañ ko war a c'est te kooku dañ ko war encourager mais du pas pour yuuxu ko parce que tey am na ñu bëri ñoo xamante ne ay kilifa yu bëri ñoo xamante ne boo boo fëggee seen buntu tey ne leen dama la bëgg a parrainer lamb dañuy bañ donc bu amé ku ci accepter ah hein, ñew indi terangam temps bi du yag parce que ça ne fait même pas 5 minutes donc temps bobu war nañ ko eh, ki nga xamantene moy euh, mo indi terangam hein, xol ci ki nga xamantene mo teug mo teug mise pour mëna yow amateur nga mëna nga aussi pour franchement war nañu mëna dawal compréhension may promoteur bi

waaw donc euh, franchement ñu ngi koy sant ñu ngi koy euh, sant bu baax di ko jaajëfal waaw di wax ne li mu indi noonu yal na ko yàlla ful def ko ay milliards dul jeex waaw du aussi franchement euh, ben carrière am nag xamuñu ko parce que on l'a pas su seetaanuñu ko mais dëgg nañu ne def na benn carrière bu bu bu bu amul fenn carrière bu baax. bëri ak ay moromam mosul tricher parce que mbër yu mag yoon en général sax xamuñu woon luy tricher xamuñu woon combine da doon bokk ak nit ki ndey ak baay sax wala ngeen bokk benn kër wala ngeen bokk dëkk sax bu ngeen tasee da xamante te bu làmb ji jeexee aussi ben da di dalaat fi ngeen nekkoon mais tey da ngay xool tey koo xamante ne par exemple yaa ngi dëkk euh, Tataguine di combine ak koo xamante ne mu ngi dëkk Fongolemi ben au nom de quoi xaw na dee waar te yaakaar na ne mayante booy may da nga war a maye li nga am mais li nga moomul waroo ko maye boo jëlee drapeau nag bu la neexee ku la ci neex nga jox ko bu la nga xool ki nga bëggoon a may nga yëkkati xaalis bi yëpp wala nga yëkkati liñ ci teg nga jox ko loolu yoonu kenn wu si sa diggante mais li ngay maye moomoo parce que lamb ji moomoo ko donc waroo maye parce que moomoo donc mbëri nañuy def attention ci seen combine bi waaw def attention franchement ci seen combine xam ne euh, combine moom franchement baaxul ci làmb te day yàq làmb baaxul day day def euh, attention bu baax quoi franchement man su ma amee ku may combinal bu ñëwee ci làmb ji bu bindoo man du ma bind su fekkoon ma bind ba parce que mu leer ma ne bu ma tas ak moom dama koy may damay dem ne table teg na ko leen ma parce que maag diw du ñu bëri te mu ngi ci géew mais loolu moo gën a rafet ah voilà bu ngeen yéeg téléphone yaa ngi nii mais ma woo la ndax da ngay dem gannaaw tey mu ne waaw ma toog jàpp sama ñaamar xaar beneen jour xam ne yoon yemul benn bu beneen yoonee moom mu toog yow nga dem loolu kay franchement mooy comme ni bi gën a sell gën a noble gën rafet hmm? ben euh, seen émission Njoktoor euh, franchement c'est tous les lundis c'est tous les lundis mais d'un moment ala la dame macha chapeau à son production parce que je journée chaque jour ni lay dame. waaw ay journée chaque jour des nerfs des ambiances, ambiance xam nga des ne quatre, indi woykat boo ne nit bëgg nañ ko ak tëggkat bu mais franchement ambiance à gogo d'un daal euh, man moom franchement amateur direct rek la am baram, bu ma leen joxoñ mu yuuxu parrain bi parrain franchement euh, franchement mooy sponsoru bëre simple parce que bëre simple ñi ci am sponsor bëriwul comme ni ma len ko waxe rek Ben ben gala la gis ren ma am sponsor moy lam ndolaan bi moy wa Fadiouth production bi donc kon franchement euh, chapeau à sum production nam neex na am na ambiance xumb na te gisuñu fa dal ben ciow wax ñu ciow am nak ne ñun gisuñu ko fa franchement wa di sargal ñep aussi di nuyu aussi fàtte woon naa nuyu waa TV TV ñu ngi leen di nuyu suñu ay confrères lañ ñu leen di nuyu bu baax di leen Euh, sargal di leen tàggatal bu baax di leen wax aussi toogaay bi dañ koy gën di rafetal ñi toog ci kanam à tout moment bi ñuy jóg nañu def signe ñi nekk ci gannaawam parce que gannaaw dafa xat te boo xasee toog ci kanam boo tëbee tam nit nga jóg rek da nga yàq filmé te li nga xamante ne aussi bëggoo ko bëggoo di def nit quoi loolu nañ koy sorale nañ koy sorale baax di wax promoteur aussi nañu daawal compréhension nañu daawal compréhension euh, ak ñi nekk ci gund bi aussi nañu daawal compréhension parce que ñun ak promoteur yi ñoo far ñooy wax ñun ak promoteur yi ñoo far dem am na ñoo xam ne dañoo paas te pourtant liggéey nañu ci lamb ji def nañu ay publicité da dugal nañ ci TikTok dugal nañ ci Instagram ah dugal nañ ci seen groupe yi partagé nañu dugal nañ ko ñi def émission wax nañ ko ci émission yi donc franchement nañu sóoraale te xam ne euh, ñi bokk teen bi ñooy ñooy laxasoo ay goj waaw ñi bokk teen ñooy laxasoo ay goj waaw franchement euh, TV TV mënu dem bay promoteur promoteur mënu dem bay TV TV parce que boo xoolee promoteur da doon am journée am lambam dem télévision fay dem rajo fay te du yem ci benn rajo da nga ci ñaar wala ci benn wala ñaar ba ci ñetti rajo fay ay publicité mais léegi yow TV TV mooy jël benn kii rek dafa la benn euh, benn affiche rek ñu tas ko gars yëpp liggéey ci ñiy def voix def voix ñiy def vidéo def vidéo ñu def am émission aussi bi ñu def émission waxaale ko ci bu ko defee affaire bi day siw dem ba nga xamante ne franchement ñiy déggal TikTok TikTok ci dugalee kooku mooy piste bu gën a gaaw moo gën a gaaw mën nga am ay mille mille mille vues léegi YouTube mais boo dugalee TikTok vidéo bi nga dugal noonu ba am ci mille vues mën nga ci am léegi vingt mille vues wala trente mille vues donc kon franchement promoteur yi nañu xam ne euh, TV TV jóguñu pour yàqal leen te yaakaar naa ne aussi ñoom mënu leen xam dara mais nañu fexe rek euh, rafetal diggante bi te di composer te TV TV aussi bu làmb amee eh, franchement ñoom nañ ci liggéey li ci war a liggéey parce que liggéey ci aussi ñu bëgg a dugg ci lamb jàmbur yi aussi yooyu aussi euh, franchement c'est à éviter donc loolu mo lañu ñu wax ci émission docteur bi ñi ñëw ci annonce lamb yi Thomas production mo xewle le 4 mars 2023 euh, à au terrain Gaal avec une mise de 3 millions animation ba Ndeye Fatou la ak Babou Ndaw bu Ndundox parrain ba euh, Djibril euh, Wad, la bu la maire de à la mairie de Biscuiterie c'est le maire de la Biscuiterie wa ñu fay décorer Mbaye Kalom TV ak Bagakak TV waaw le le 4 mars. Euh, Nior Al Santal euh, du 27 au 28 février 2023 avec une mise totale de 7 bœufs et 80 000 francs. Fans Club Boukandour Ndour, 12 mars, avec une mise de 2 millions. Deuxième édition Sargal Abdoulaye Ndour, ministre conseiller. Niahar Production organise le samedi 11 mars encore, samedi 11 mars, euh, avec une mise de 700 000 francs à Niahar, Fayamboj Abdoundir. Mémorial Mémorial Khadingom, Khady Ngom bu Gandiaye la ndeysaan dem si yàlla bi yal na ko yàlla yërëm Khady Ngom bu Gandiaye mémorial am le 12 mars la à Gandiaye avec une de 500000 marraine ba Mbayang Loum la marraine ba Mbayang Loum la ñu tuddee moom la ñu marraine euh, lamb ja lamb mémorial Khady Ngom bi euh, fans club Khady Ngom ñoo koy tëgg le 12 mars à Gandiaye Konaré production Konaré production du 3 au 4 mars la avec une limite de 300 000 francs à Sob yedin Sob yedin c'est Sob Samba mais nous, ci bëri Sob Samba Dieng la Sob yedin mais Sob yedin di Sob yedin Si boo ñëwee ba rek ben c'est à quelques c'est à quelques kilomètres quoi à peine 5 euh, ou 6 kilomètres comme ça mm, mais c'est à gauche mm-hmm, Sob a euh, Konaré Production quatrième édition Bira Sen, euh, le président du CRG mais première édition je suis le mu président du CRG mais on souhaiterait souhaité nañu dem fa souhaité nañu aussi gis ko parce que aussi musu ko tardé kon amna nañu dana ñëw kan mo koy woy khadi babu khadi babu nak moy khadi babu Ngom bu Gandiaye kan mo koy teug ndiaw bu bebel bu belel ndiaw bu belel parrain ba laatar jon la bu njila la laatar bu njila seem mbelu ngiic mbelu mu ngi dugg du 8 au 11 mars 8 au 11 mars Mbelou Ngit nag c'est juste avant nga dugu ganjay bo joge Dakar juste avant nga dugu ganjay fekk da nga joge Kaolack aussi bo gene bo gene ganjay rek di dem Dakar rek Mbelou Ngit ngay njëkk jot ci yoon bi quoi c'est juste sur la sur la route ah poussière ba ñu ngay tegg 50000 ragadu ba 150000 cinquante la Mbelou Ngit poids léger ba ñu teg poids lourd ba 500000 francs lañu tegal ya éclairage ba ak sonorisation bi Lamine ñaan bu ganjay mo koy leeral xalambas 3 xalambas 3 wala xalambas toog

waaw Kër Mbagne job Kër Mbagne job sinik Kër Mbagne job mu ngi wetu wetu Mbella Kadiaw boy dem xam hmm, Kër Mbagne job du 9 au 11 mars le 9 11 mars avec une mise totale de 10 bœuf waaw avec une mise totale de 10 bœuf kan mo koy teug Paplo Palo bu fatik ak euh, Awa Ndiaye bu acca euh asan Ndiaye asan Ndiaye production asan Ndiaye nak fofu dañu wara taxaw seetlu fofu tout cas parce que asan Ndiaye mu ngi bëgg innovate innovate parce que mise bi ren mën naa wax ne Jaks rek moo fi 5 à 6 millions 5 millions 6 millions donc Assane Ndiaye a la deuxième personne ci saison bi bëgg a une 5 millions fan la koy euh, la koy tegee à ren Massène Sène la tegal 5 millions de francs CFA 5 millions de francs CFA drapeau Matarba. Matarba, le maire de la ville un ancien ministre des sports Le maire de la ville le léegi ministre conseiller si je ne me trompe pas donc, Hassan Ndiaye, c'est une date à ne pas oublier, c'est une date à ne pas rater, surtout les lutteurs hein, et les amateurs. Surtout les lutteurs et les amateurs. Bah, Hassan production avec une mise de 5 millions de francs CFA à Fanle, Fatik le, et Sadma Kagne le, le 4 mars. Le 4 mars à Fatik. Donc, Fatik, ben, euh, yoon yep, nañu dem Fatick keroog mbër amateur amateurs et tout nañu jubal Fatik. dem fa Hassan euh, Ndiaye moo woote te bés bu parce que bes du tuuti borom lay niirool waaw bes du tuuti borom lay niirool te Assane du ko daw macha ñu defal leen rappel rek tuuti euh, pour ñi nga xamante ne peut-être euh, nekkuñu au courant Toma production waaw ci brefing rek Toma production 4 au 5 mars la avec une mise de 3 millions au terrain galbi. gi euh, animation ba Ndey Fatou la ak Babou Ndaw bu Ndundox décoration ba Mbaye Kalom la ak Babacar TV parrain Bakan la Jibril Wad le maire de la Biscuiterie hein. Nioro Asantal du 27 au 28 février 2023 avec une mise de 7 bœufs et 80 000 francs le Fans Club Boukandour organise aussi le 12 mars, le 12 mars à Djahaw, avec une mise de 2 millions. Deuxième édition, Sargal Abdoulaye Ndour, ministre conseiller. Niahar Production organise du samedi au 11, euh, du samedi, 11 euh, mars euh, avec une mise de 700 000 francs. Fayamboj Abdundir Abdoundir Djoufan, hein. Mémorial Khadingom de Gandiaï. Mémorial Khadingom, le 12 mars à Gandiaï avec une mise de 500 000 francs. Euh, marraine ba kan la Mbayang Loum Mbayang Loum la mooy marraine ba ñata lañu tek teg 500000 francs CFA. Konaré production Konaré du 3 au 4 mars la fan lay nek Sobiedine Sobiedine la euh, à quelques kilomètres de Gandiaye la à gauche boo ñëwee ba Gandiaye rek euh, c'est à gauche bo taxee fofu ci garage bi fo né Sobiedine rek dañ na koy dañ na ko dëgtal kan moy parrain ba. la Latir jaune la la Latir jaune bu Njila Sem ñata lañ fa teg 300000 francs CFA mbélo ngi ci

poussière ba quarante mille franc la rogadu ba cent mille poids léger yu ñu tegal ñu ak vingt cinq mille franc poids ba ñetti nag la ak trente cinq mille franc kan mooy parrain ba Alexandre Ngom le maire de Thiombi le maire de Thiombi mooy parrain ba animation ba Matar Sène la euh, bu Mboxodof ak euh, Ndeye Fatou Adama Jëli Kër Mbadiop Kër Mbadiop Sinig Kër Mbadiop mu ngi wetu mu ngi nekk wetu Mbelaka Diaw entre Mbelaka Diaw euh, du 9 au 11 la avec une mise totale de nag lañ fa tegal mise totale waaw eh, kan moo koy tëgg Palo bu Fatick ak Awa Ndiaye bu Ñaaxar ben Assane Ndiaye Assane Ndiaye production Assane Ndiaye Bawol production eh, moo ubbi saison ren ci bëre simple bi ubbee ko fan Fatick eh, drapeau Matar Ba stade Massène Sène ñaata la teg 5 millions de francs CFA Assane Ndiaye mu ngi tëggal mbër 5 millions de francs CFA donc euh, vous les lecteurs vous les amateurs euh, le 4 destination Fatick la. Arène Massensen. C'est une seule destination. en hein. local, c'est une seule destination, c'est à Fatik, avec une mise de 5 millions de francs CFA. 5 millions francs, franchement du caaxaan foofu mag dama bëgg sax ñaan waa CNG mbëri yu simple nga xamantene dañu am combat ñu may leen rek jour bobu ñu dem mbëri ji compétir parce que 5 millions du tiaxan wa 5 millions franchement du tiaxan wa Assane Ndiaye moy woo gaay yi woo leen ñëpp le 4 mars fan la fatik stade de Sène avec une mise de 5 euh, millions de francs CFA. Euh, cette émission Docteur Lawon avec Jacques Albert au micro ben di ñaan les internautes les abonnés, abonné mais nañuy yok abonné di aimer partager de de notification parce que aussi dans moy xorom bi ci li C'est moy neexal euh, moy neexal moy neexal moy affaire bi ben émission ala quoi partager aussi les vidéos vidéo Mbine TV de partager, koy de liker, aimer, di ah, la cloche de notification bi pouvez vous abonner pour abonné cloche de notification bi loolu vous lay permettre eh, vidéo vidéos xam ne ci TV automatiquement day sur YouTube nga xam vous waa Mbinaan TV dugal vidéo merci encore une fois aux internautes, merci aussi aux téléspectateurs, merci encore une fois aussi le bon de en entier, les amateurs de la diaspora. Nous avons aussi le numéro de TikTok de Water qui vidéo yi ñu ñu nañu ñu ngi féliciter aussi les messages parce que ñu ngi jël numéro yi di WhatsApp di envoyer message aussi les commentaires franchement merci encore une fois au monde de la lutte jusqu'au deuxième numéro le lundi prochain Inshallah,

Thank you. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to

février 2000, 2023 euh, avec une mise de, 1 million de francs CFA avec une production des salles. Waouh, waouh, Modou Djamtieri, c'est pas Djamtieri, mais Grand Yoff. Et on a fait Modou Djamtieri des salles. Modou Djamtieri des salles. C'est pas Meko Djan des salles, Grand Yoff. Ah On tourne de son production des Waouh, Waouh, waouh. Mhm. Waouh, waouh. Foura Djanola, Jakarta Pisa Langala des salles. Ah Sikamba ek adwa sim wow wow aha yo na janola ne san wata nak sodan mhm. wow wow aha zoom ndeysaan xëy na dafa boy maroon waaw waaw boy maroon te dafa nee na ndeysaan xëy na dafa boy maroon ndeysaan waaw waaw boy maroon ne nekk ngel na Grand Yoff waaw waaw tournoi Soum production ndeysaan le 26 février 2023 mekk na ngel na Grand Yoff ndeysaan xëy na dafa boy maroon waaye xëy na dafa boy maroon bu Fissel ndeysaan boy maroon bu Seras le plein de ganaseras Seras ndeysaan xaalet na ɓayo la le plein de ganaseras le plein de Gansak Seck ndeysaan Boy Maron zoom Wawao. waaw wa mbina Wawao. ay c'est l'entrée de Boy Maron ndeysaan Boy Maron le champion de Seras le champion de Fissel ndeysaan ten a rokida nene no ngol tournoi de sum Production ndeysaan a ah, waaw waaw waaw ndeysaan a gook no xalangalaw xe xeɗa waaw waaw sukuna ci suuf ndeysaan mu ñaan mu ñaan yàlla naa jël drapeau bi lay wax ou bien lan lay wax ndeysaan aha kooku may boy maroon waay ndeysaan boy maroon moo fi bodoon bërëbul der bi ndeysaan saison bi passé nii ñaari ñaari euh, yu mujj yëpp ndeysaan moom moo ko jël fii ci Grand Yoff aha fan refu boy maroon ndeysaan waaw waaw kooku boy maroon mais kee noxel na Grand Yoff ndeysaan au tournoi de Soum Production avec une mise de 1 million de francs CFA ndeysaan Caaka Faye moo nekk noonu si Caaka Faye moo nekk noonu si ah, sama gaay lamb ji neex na waaw waaw lamb ji neex na ndeysaan lamb ji neex na ñu ngi fii Grand Yoff waaw waaw Grand Yoff le 26 février 2023 avec son Production ndeysaan pour une mise de 1 million de francs CFA ndeysaan waaw waaw aha waaw waaw ndeysaan a gok nu xa soko na ci suuf waaw waaw soko na ci suuf ndeysaan waaw waaw ah adama daba la waaw waaw sànni na ko aha sànni na ko waaw waaw mu nga bugg sànni ci quatre côté yépp ndeysaan borom lu xonq loolu ngeen di gis noonu kooku mooy Caaka Faye de ginnaaw ndeysaan aha waaw waaw zoom gaay aha ndeysaan waaw waaw wana dafa booy maroon ndeysaan wana dafa booy maroon waaw waaw a deba Senghor na quatre côté ke ndeysaan saani na Senghor ci ñeenti côté yépp ndeysaan waaw waaw aha zoom gaay Caaka Faye sipo jannangal na Grand Yoff Caaka Faye sipo jannangal na Grand Yoff ndeysaan après booy maroon Caaka Faye oh. après boy maro ndeysaan Caaka Fay la Caaka Fay meke no ngel ne Grand Yoff ndeysaan au tournoi de Soum Production ndeysaan avec une mise de 1 million de francs CFA aha waaw waaw animation bu neex bu ru pot pàcc waaw waaw aha ndeysaan waaw waaw aha ndeysaan waaw waaw Caaka Fay a ngi ñaan lu muy wax ni kenn xamul wax am de musul ci cat am de musu ci seytaane ndeysaan waaw waaw Mamadou Seck mu ngi ci ginnaaw Mamadou Seck ndeysaan mu ngi ci ginnaaw muy seen kumpa waaw waaw seen kumpa ndeysaan mu nekk noonu si ginnaaw ci ginnaaw caaka fay seen kumpa nekk ndeysaan waaw waaw zum gaay am nañ ci biir caaci mbay aha am nañ ci biir sako xam-xam pap maron ndeysaan boy maron mu ci biir waaw waaw caaka fay Mamadou Seck ndeysaan moo ñëw noonu waaw waaw kooku mooy Mamadou Seck Mamadou Seck ndeysaan Wow, waaw koku moy Mamadou sek waaw waaw Mamadou sek mo nekk noonu Wow, moy Mamadou sek Wow. waaw waaw koku moy Mamadou sek waaw waaw aha ndessane koku moy Mamadou sek ndessane waaw waaw Mamadou sek mo nekk noonu waaw waaw eh gan sek gan sek gan sek gan Diofane gan Seras gan sek gan jofan gan seras ndeysaan gan sek gan jofan waaw waaw aha ndeysaan waaw waaw gan sek ndeysaan entre de gan eh, ngal na fela aha Grand Yoff neex na ndeysaan na neex na neex na lool tey macha allah waaw waaw yëpp a ngi fi waaw waaw ndeysaan ndeysaan waaw waaw beneen mhm. waaw beneen champion ci ginnaaw beneen champion bu dëkk ngiw ñaan ndeysaan mën noonu ci ginnaaw waaw waaw